Fidèles téléspectateurs de la chaîne Réumi TV, merci. Bienvenue dans cette émission, l'émission Réumi People, l'émission des stars du Sénégal. tey nag ñu am mbégte dalal ki nga xamante ni mooy Stéphane Kabou il est dans le milieu des des vidéos il réalise donc des vidéos donc tey moom la ñu am mbégte dalal ci bile plateau. laata loolu sama partenaire de tous les temps lay dalal jàmm li la fa passé dama def fa bon mais laa ci nous reviens sama va. ça ñu ngi lay bëgg bu baax a baax di ziar euh, ñuy déglu émission bi réew Rewmi People ak ñi koy seetaan ci réew Rewmi TV ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ziar bu wér-wér di bëgg ñëpp samedi bee passé ñëw ma woon mais tey maa ngi fi. Mhm. Jaajëf. Alors Steph, bonjour. Bonjour. Vous Mimi. merci à vous. Bienvenue dans notre plateau. Merci beaucoup Mimi, maa ngi lay nuyu bu baax euh, di nuyu Djily sa co-présentateur di nuyu téléspectateur Rewmi TV yëpp ak auditeur bu Rewmi FM yëpp. Mhm. Voilà. D'accord. La toute première question mooy Stéphane. Mm. Qui se cache derrière cette personne? <laughs> Euh, c'est euh, une personne simple, hmm, une personne naturel, normal. Enfin, c'est la personne que vous êtes en train de voir. Vous voyez en ce moment, c'est cette personne-là qui existe vraiment. Mm. Il mm n'y a rien qui se cache derrière. C'est juste quelqu'un qui a, qui a envie de faire les choses différemment. comme on parle de, du domaine de, la musique, mm -hmm. euh, j'ai envie de faire les choses différemment. Que ce soit musique, que ce soit vidéo, que ce soit animage et tout, j'ai chaque fois envie de faire les choses différemment. voilà. Pensez-vous que, euh, pensez que ça sera facile Bien sûr. Enfin, euh, à un moment donné, on peut être incompris. On peut être incompris à un moment donné, mais je pense que là, actuellement, les gens commencent à comprendre mon état d'esprit. Est-ce que le message que je veux vraiment faire évoluer, en fait Quel est votre message euh, Écoutez, hein, <laughs> je, franchement, je ne je puise, pas, je puise pas profond. Je puise du tout ce que j'écris, tout ce que je véhicule, c'est des messages qu'on qu vit au jour le jour. Par exemple, quand je parle de Souf, quand je parle de Santenagod, quand je parle de, de César, enfin, c'est des choses qu'on qu vit tous les jours et que moi, j'essaie d'extérioriser, en fait. Mais différemment, c'est ce qui fait, en fait, que ça crée peut-être des polémiques ou que les gens ne comprennent pas un peu mon travail. Mais ce n'est pas quelque chose de, de, de profond, d'extravagant et tout ça. C'est quelque chose qui est acquis, qu'on vit tous les jours, au jour le jour. Mhm. Mm -hmm. mm. On sent que vous êtes en quelqu'un de très original. dans l'art que vous préférez faire la musique mm. est-ce que tey jii jàpp nga ni loolu mën na dox est-ce que c'est le genre de truc que le Sénégalais veut consommer dox dox dox dans quel sens c'est-à-dire que nga jaay si wala genre yooyu moi moi moi franchement quand mm-hmm. je fais les choses du ma xool ndax dama koy jaay ou pas mm-hmm. sérieux man musique bi ba léegi nii en fait am na fu may fay am na fu ma fayulee su ma nekkee en Europe je tourne je tourne je joue à des festivals je joue à des concerts on me paye plus que lu ñu may fay lu ñu may fay bu ma nekkee Sénégal ou ailleurs. Mhm. mais n'empêche man lu ma si investir man à titre personnel moo ëpp fuuf samay vidéo wala affaire yu noonu. Mhm. mais xaaruma si pour mu fay ma xam nga wala mu marché en fait marché pour moi ça marche dès l'instant où tu touches une seule personne pour moi ton projet a marché. Mhm. maintenant euh, boo euh, nekkee artiste. en fait et que tu damay def benn affaire pour que am reconnaissance nit ñi et tout tu vas tu, tu vas en fait. Mm -hmm. parce que à chaque fois bu ñu reconnaître li nga def rek da ngay frustré mais pour man un artiste doit s'autosatisfaire d'abord que nga jàkkaarloog sa seetu nga xam ne li may def nii neex na ma touché na ma man d'abord. Mm-hmm. nga déglu sa son sa yaram daw nga xam ne ngay extérioriser lu vrai la nga seetaan sa clip di gis film wala li nga bëgg a véhiculer nga koy fil yow déjà autosatisfaction boobu rek c'est un keneen bu lu nee booy li nice wala maa ngi ci yëg sama jeex na. soxla woo leneen leneen loo am bénéfice la boo nekkee artiste waroo xool pour plaire forcément aux gens ne xaaral ma def lii pour que nit ñi non waroo def. mais ça doit en faire partie quand même. oui mais pas pas mu nekk lu objectif. Mhm. da bàyyi mu ñëw naturellement mu ñëw simplement. Euh, parce que bu fekkee nekkul lu objectif rek da lay dugal ci histoire de buzz te buzz c'est faire beaucoup de bruit après. da lay sincèrement tu n'aimes pas le buzz. je préfère exister. Mhm. fu ñu ma gis. respecté a différence. parce que tu peux faire le buzz à un moment donné comme lu ñuy wax tàkk fay. Mhm. comprendre nga doo def carrière dal na ñu bëri mais am na ñoo xam ne depuis long time ñu ngi ci milieu bi di dóor mu daanu fu ñu ñëw ñu ne leen yiw respect même ñiy def buzz noonu bu ñu gisee ñoom dañ naan yii respect. Mhm. et man pour man c'est ça le plus important bés boo demee nag ba nekkatoo fi. qu'on puisse se dire oh mais le gars il a eu à ñu dem revisiter say archives xool say vidéos xool say interviews et xam ni kii waxoon na fi lii te loolu du dañ ba léegi. Mhm. pour man du lu ñuy sax war a provoquer en fait buy ñëw day ñëw naturellement day ñëw normalement mais man seetuma loolu mais quand même je cherche à exister. Mmh. Mmh. d'accord la toute première question à waaw dama ko dégg mu ne moom cherché wul buzz affaire yooyu noonu euh, exister moo ko gënal muy cherché buzz mais dama gis saa bu defee clip day def buzz dafa am fu ko nit ñi di dëkkale te moom nee na cherché wul buzz. Mm-hmm. lu waral si clip yi di am coow. c'est fan. waaw c'est comme lu may wax rek c'est un truc qui n'est pas voulu. Mhm. day nekk loo xam ne naturel la xam nga yow yaa ngi si milieu hip hop bi yàgg nga si. Mhm. gis nga ni milieu hip hop bi depuis temps bu yàgg respecté na lu gars yi def mais dañuy gis à un moment donné clip yëpp ñoo nduroo mhm. xam nga clip yi les clips se ressemblent même clip même façon de clip la et tout évolué na depuis des années mais je veux dire temps bu njëkk ba. c'est normal à moment donné amul woon yenn moyens yi amul woon yenn kii donc dem nañ ba léegi am moyens yi donc il ñu def lu extra. et pour man mu ngi fii nii du matos bu bëri moo koy def en fait xam nga lu la pour man si xel bi la man je suis quelqu'un de passionné de cinéma quoi mhm. cinéma moom mooy sama live cinéma moom laay dund je regarde des films damay réaliser damay monter damay def voix off donc c'est sama monde la quoi xam naa bu baax lu lan laa mun a def pour toucher nit ñi et puis je suis un passionné de cinéma donc su may bind son bi moment bi may bind son bi laay commencer di xalaat clip bi nan laa bëgg mu mel. xam nga donc damay pare rek dem gis sama réalisateur ñu wax si ñu xool nu ñu defee scénario bi ñu job après nag gars yi dañuy gis loo xam ne peut-être mosuñu ko gis. dañuy gis genre affaire yu bees et tout ça. loolu moo tax ñu ñu lay dëkkal peut-être foo dëkkul. mais tey bu fekkoon benn artiste américain moo ko def wala benn sénégalais bu siiw États-Unis wala France. duñ jàpp ni loolu lu bizarre mais dañuy gis ni ah kon ku doon toog fii nii moom moo def lii. jaaxal quoi daf leen di feneen alors que c'est liggéey la boo xamante ni. c'est un truc qui est bien travaillé rek ak bien recherché loolu rek la. mais sa clip sa clip may gis ngay faral di def Stéphane clip bi. Euh, xam naa li nga ciy def ci xaalis ay millions la. mais sa clip yi la yi gën a xam que sa son yi saa boo day def coow day indi biir yi. ba gars yi lay dëkkal sax si loosu formation yi dañuy naan gan gi formation la loolu yàgg ko dégg. même bu fekkee da koy weddi tey yàgg nga dégg loolu. mais say sound du am si rajo yi du am si grand public bi. Mm. mais sa clip ñëpp koy gis. di la dëkkal fi nga dëkkul sa clip bi nu muy defee buzz pourquoi pas sa sound yi munoo def de tout ba ñëpp jot si mu def buzz moom. waaw man man man dama jàpp ni en fait kenn mënul am lépp. Mm-hmm. par exemple man liggéey naa si média xam naa nu ñuy def bu fekkee comme lu ñuy wax ay siiw yooyu ma xam naa nu koy defee. naa yoon bi mais euh, par exemple li nga wax nii par exemple artistes yëpp noonu la ñuy def. Mm-hmm. comme li ma wax chaque fois damay bëgg ñëw def leneen tey boo nee Stéphane par exemple depuis 2012. 2013 2014 ba léegi. boo waxee Stéphane clip bi rek lañu lay wax donc ça veut dire que kon découvrir guñu moitié wu sax li may def et ça bien xam nga lu ma la donc ça veut dire que après bu ñu découvrir son yi dinañ ah kii mën na lii aussi donc son yi sax man du ma sax génnee ay single damay ñëw def benn son clipé son bi léegi génnee son bi ak clip bi mm. léegi gars yi gisaale ko découvrir ñaar yëpp am na ñoo xam ne bu leen son bi neexee ñu download ko convertir ko yor son bi et cetera je loolu si sama stratégie yu njëkk la bokkoon mm. mais maintenant récemment ci laa changé stratégie jël sama benn single parce que lu may def rek damay bëgg mu stratégique bi ma demee ba pare sama album ba ne ok laa damay génne album bi n'empêche il y a quelques jours génne naa clip dama ñëw génnee clip quand clip boo xam ne son bi mosuñu ko woon ci album bi la nekk après ma génnee benn son boo xamante ni ci album bi la nekk aussi mais mosuñu ko dégg mais son kese la def naa scénario ba pare war naa ko tourner bientôt Casamance laa ko bëgg defee mais voilà loolu loolu si stratégie la bokk rek. ci album ci album non non ci album. di euh, ngay waaj a génne bi may waaj a génne 2020 bi. mais lu tax nga def choix boobu noonu nga bàyyi album bi pare nga soogay def clip bi mais dañu gis da nga def ay son yoo xam ne ci album bi lay bokk ngay def ay clip di ko génnee di ko jox gars parce que image moo gën a accessible. Mm-hmm. ñu bëri dañuy déglu rajo c'est très très bien mais euh, la preuve instant yi nii ñëpp a ngi bëgg def rajo télévisée. xam nga wala web TV wala parce que bët lu muy kii moo gën a moo gën a sensible que nopp lu muy dégg quoi xam nga mun nga dégg dara et tout mu def ci sa subconscient nga fàtte ko après et tout ça mais boo seetluwee ci live bi da ngay dox ba si yàgg nga ne nga def benn affaire nga ne mais lii mosoon naa ko def wala lii mosoon naa ko gis fenn mais c'est rare nga ne lii mosoon naa ko dégg fenn mosoon naa ko gis fenn parce que bët lu muy jàpp moo gën a moo gën a poignant fait xam nga mm-hmm. donc du coup moo tax man ma bëggoon investir ci nga xamante ni tey man fu ma romb Sénégal vidéo yi lañ may wax non gis naa la xàmme naa la si vidéo yi et cetera mais duñ ne dégg naa sa son pour le moment et ça c' très bien de l' instant où nit ñi bëgg nañ la gis gis nañ la c' est très très bien parce que man euh, tey booy seetaan film nga gis benn acteur bu mel ni Will Smith bu lay neex visuel bi moo lay neex du baatam forcément xam nga même film bi mu nga ko teg di déglu son bi et tout ça son mën na neex mais beneen approche la encore mm-hmm. du bokk quoi donc pour man image moo gën a gën a important mooy gën a mën a toucher nit ki mm-hmm. Steph euh, que réponds-tu aux gens qui pensent et disent que vous êtes franc <laughs> loolu loolu loolu nekkul dëgg loolu ñëpp xam nañu nekkul dëgg. enfin ñi ma jege xam nañ ko xam nañu nekkul dëgg ce qui s'est passé c'est que. loolu faaw xelu gars yi jaxasoo. ay affaire yoo xamante ni saa ak yi muy génne album bi muy waajal xoolal genre affiche yi mu muy. genre affiche yi ku ko xool. waaw mais mais mais yëpp am na explication en fait li yëpp am na explication. doon dinañ si ñëw voilà mais. en fait mm-hmm. euh, ce qui s'est passé en fait wax boobu fu mu jógee sax c'est que bi ma génnee sama premier album bi 2012 j'ai été reçu par l'ambassadeur d'Israël. nga et donc du coup gars yi foofu la ñu commencé di wax wax boobu noonu mais man fekk. avant loolu génnewoon naa sama clip xaayee ba pare te clip bi commencé woon na télé yi di ko teg gars yi di ci wax et tout ça moo amoon ay triangle affaire yooyu noonu mm-hmm. donc après bi ma demee ambassade Israël bi recevoir a n'a rien à voir dañ dañ ma recevoir dans le cadre du travail lu moo leen neex ñu recevoir loolu rek la te dama defoon ci album boobu noonu featuring ak artiste israélien donc loolu rek la woon après bon wax bi continuer gars yi dañu gis ne clip bi clip yi dañu dañu bizarre dañu sombre am na ñoo xam ne dañu gis ne clip bi dañ dafa spirituel. Mhm. par exemple xam nga donc les les idées diffèrent mais voilà. mais sa album 2000 sa bi foo mhm. moom album bi retour yeeg yooyu. non album bi ma ko génnee 2012 franchement j'ai pas eu le temps de faire la promo dama ko génnee après bouger ci même 2012 bi après ma voyagé dem nekk yeneen dem jàngat jàng vidéo liggéeyaat si domaine boobu noonu et tout xam nga donc loolu moo tax ba jotuma woon def promo bi bu baax benn clip rek la album boobu laa ci def. Mhm. donc après ci laa commencé di génne ay clip et la plupart des clips yi ma doon génne boobu ba léegi sax son yooyu yëpp du bokk ci album bi mm-hmm. donc yii nii son yu bees tàq la clip yu bees tàq la yi ma mujjee génnee récemment ñoo bokk ci album bi mm-hmm. donc loolu la mais j'ai toujours bossé dans le monde de l'image ci laa mos a nekk mosuma si jógee Steph pourquoi mm-hmm. le choix de faire des clips sombres lugubres qui font peur parce que da nga sa particularité la wala non mais du clip kii <laughs> clip yi day am scénario waaye soo décalés en fait par rapport ak lu ñuy def bon bu ñu jëlee tolluwaay bi par exemple xam nga effets spéciaux que caméraman yi xam nañ ko réalisateurs yi xam nañ ko xam nga effets ay effets spéciaux la rek comme ma def benn clip xeer yi di naaw affaire yooyu noonu c'est juste que en général euh, gars yi gars yi ci bëri bu ñu defee genre effets spéciaux yooyu mel noonu day ça ça sent le cramé quoi duñ ko def bu baax. xam nga pour ñu détourer loolu def ko parfois duñ ko def bu baax man nag je je bien fait moment boobu noonu à l'époque et tout ça et bi ma solee capuche bi dox ci désert bi noonu euh, histoire Moïse la woon xam nga donc loolu noonu man li may woy yëpp dara génnu si yàlla histoire Moïse la woon loolu rek laa jël interprété waat ko et tout ça avec les moyens qu'il faut mais gars yi comme mosuñu gis loolu ils se disent que mais lii c'est bizarre et tout li ñu jël ko def ko ci spiritualité mais dañ def j'aurais pu faire des vidéos woo ay gel yu nice woo ay oto yu def affaire yooyu noonu mais c'est pas le message que man je veux laisser à la à jeunesse qui me suit. quel est votre message. de se retrouver avec soi-même déjà de se retrouver avec soi-même sama son bi ma def suuf bi may génn ci ndox bi noonu maa ngi wax ci refrain bi suuf dellu ci suuf jël li nga moom God parce que ñëpp xam nañ ñun suuf lañ dañuy delluwaat ci suuf loolu mun nañ ko fàttali wante tous les jours àdduna bi tukki ci façon bu nekk xam nga te du doy te du jeex moi je veux Euh, woy ay bling bling woy ay oto yu rafet bugguma woy lu ma lu ma amul bugguma bugguma loolu parce que am na au moins lu mu dee dee des personnes qui me suivent ñoo xamante ni mun nañ ne kii exemple la ci man et cetera mun nañ foog ne loolu moom mooy yoon su ma demoon bay woy ni am naa loolu aussi dinaa leen jox fin wu loolu en fait c'est-à-dire que di xëcc loo xam ne nekkoo ko am na ay conséquences peut-être bu ma doon woy loolu noonu laa koy woyee mais du ko woy pour gëmloo nit ñi ni am naa lii et cetera même bu fekkee les personnes averties comme Euh, yow jili ak ñeneen ak ñeneen mais du je du xale yi ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo am xelu ne ax ah non lii clip rek la xam nga mën nañ na lii waaye mais gaañ bi lu mu sol nice na xaama dem wuti ko xam suñ ko amul ñu dem lebi ko wala ñu dem dugg si ay affaires yu bizarre donc man loolu bëgguma ko je dis pas que ko mës a def mais encore une fois su ma demee ba koy def damay bugg wax gars yi ni def lii lii mooy conséquence bi mm-hmm. mais bëgguma nekkul loolu laa bëgg gëm loolu sa public franchement, les gens, les gens, ils apprécient. Moi, j'ai des milliers de vues sur... Quels sur... sont les commentaires non, moi j'ai des, des, milliers de vues sur YouTube, mais au début, mm. gars, ils comprennent nous, on dit que oui, franc-maçon, mais après, quand on a sur ma dernière vidéo, ils doivent dire que ce qu'ils disent, c'est qui Sénégal m'a fait clip, etc. Et la plupart de mes vidéos, toutes mes vidéos sont, ont été validées par des professionnels qui sont dans le milieu audiovisuel. Quoi. Ils ont dit que les gens ne peuvent pas Mm-hmm. donc euh, il faut que nangu ko rek c'est tout début bi je sais que tout début est difficile mais tôt ou tard dinañ nangu ni vidéo moom fii moom Sénégal moom bul sonn. pourquoi la préférence d'évoluer à l'étranger à Paris notamment. du du préférence ah c'est juste que je travaille là-bas. Mm-hmm. et tout c'est pas domaine domaine et tout beneen liggéey la je travaille normal et tout et voilà loolu rek la. damay profité jàngale aussi à chaque fois su ma gisee loo xam ne mun naa ko jàng ma jàng ko. je fais mhm. beaucoup de ma loo xam ne mun na ma amal njëriñ ma def ko même mu nekk en ligne wala physiquement dama koy def. Mhm. et tout ça mais tout le temps maa ngi Sénégal tous les tous mois. man sa côté mbind laay wax sax nag kuy déglu sa son. Mhm. day xam ni gan gii di rab dafa spirituel si sa bind damay naan gan gi xam naa chrétien bii gëstu alxuraan la. parce que sa bind dafa spirituel surtout si côté diine ji loolu loolu ci mën a wax. Ah, parce que ñu yow a Stéphane mm. kabu ñëpp xam na ni chrétien la mais sa bind dafay spirituel. parce que yàlla fépp la nekk. yàlla yàlla yàlla fépp la nekk. Euh, moom moo tax chrétien musulman juif bouddhiste yooyu yëpp pour man benn la dès l'instant où on est des humains quoi man su ma lay xool yow Dieu yàlla dafa ne j'ai créé l'homme à mon image. da ko wax ci téere yëpp. donc man mënuma la xool di gis leneen lu dul yàlla quoi. man su ma la xoolee yàlla rek laa war laa war a mën a gis su ma xoolee mimi yàlla rek laa war a mën a gis quoi. Mm-hmm. ba pare tamit euh, dara xajul si yàlla mais yàlla xaj na si lépp donc man munuma xool tey jii panneau bii nii te du ma si gis yàlla mënu ma xool leer bi te du ma si gis yàlla fépp yàlla laa si gis moo tax su may bind foofu rek laay mun a bindee quoi mm-hmm. xam nga loolu moom loolu moom may inspiré ba pare tamit je bokku damay lire beaucoup lu bari livre saint yi et tout ça damay gëstu lu bëri ci affaire spiritualité si domaine domaine u nit si boppam ko si mm-hmm. gëstu lu bëri waaw. d'accord mm-hmm. alors euh, euh, da nga tuub ñu bëri ñu ngi koy wax c'est vrai. <laughs> waaw dëgg la. Mm-hmm. transition boobu vous l'avez vécu comment. non positivement euh, sans aucun problème sans aucun problème bëgguma ci sooy parce que dañ ma tere wax si mais sans aucun problème mos naa si wax un jour et tout ça si benn site si seen seen ay confrères. enfin Sénégal mais après euh, voilà mais je l'ai je positivement jusque là sama vie c'est c'est c'est et tout et lépp lu nga xamante ni man maa ko engagé sama bopp wala yàlla dimbali ma si ma engagé aussi maa ngi koy maa ngi ngi koy gérer positivement quoi aw ma benn pression si leen il y a pas mhm. par rapport ak affaire franc-maçonnerie moo la dawloo ba nga tuub. non loolu yàgg na. Ah, avant ñu lay jiiñ loolu. yàgg na bu nekkee booy la loolu. mais lu tax nem bi changé woo ko Stéphane. non xam nga mënoo tudd tey jii nii benn mënoo ne jii nga tudd. Mhm. ñu tuddee la par exemple euh, Mouhamed. Mhm. après ngay rab nga ne Mouhamed mooy rab di yéeg si kaw seen bi. ñu dugal la ci sidi gars yi di la saaga naan Mouhamed di la saaga. xam nga lu ma la wax. Mhm. loolu la. mais Stéphane bu baax la ci seen côté côté chrétien yi. Stéphane tamit tur bu kawe la waaw man amul côté man côté moom. côté léegi mun nga ni Stéphane ba pare saaga tamit. waaw mais pour man lépp mooy li ma la wax rek lépp universel. Mm-hmm. pour man loolu du dara dès l'instant où nga jàpp ne bii baax na bee baax na rek pour du dara mënoon naa tudd sax Rewmi TV. Mm-hmm. du benn problème loolu tur du dara <laughs> tur du dara xol bi moo ëpp solo. xol solo waaw moo ëpp solo. tur du dara xol bee ëpp solo loolu dëgg la mais comme ni nga dàqee bañ a joxe sa turu non Mouhamad. te turu artiste. Mouhamad non non non dàqu bañu ma ko joxee. Mm-hmm. bañu ma ko joxee nit ñi buñ may xam Stéphane Kabou lañ ma xamee. moom laay continuer loolu pour man loolu dara nekku si. Mhm. pour man dara nekku si parce que euh, musique yëfu àdduna la. Mhm. xam nga euh, leneen religion yëfu leneen la beneen niveau la. Mhm. xam nga liggéey beneen niveau la bu du ci nekk rek da nga ci def lu nga si war a def. tey par exemple euh, mun nga ma wooyee yow Stéphane. xam nga sama yaay du ma wooyee Stéphane moo fils la may woowee. sama doom papa la may woowee. comprendre nga sama jabar mun na ma wooyee sama jëkkër xam nga et cetera et cetera donc tour du dara mun nañ la wooyee façon tur bu nekk nga wuyu mhm. boo rombee si mbedd ñu ne la ay eh, grand da ngay taxaw pourtant tuddoo ay eh, grand mhm. donc loolu la boo juddee ñu ne bébé bi boo dee ñu ne néew bi donc tour yooyu noonu yëpp yaa ngi koy am mais amul tur bu ñuy firnde ni yow fii nga bokk wala fële nga bokk mhm. moo tax appartenance boobu dañ jàpp appartenance yàlla rek moo ëpp solo après leneen li am na yeneen yoo xamante ni day personnel yow yaa koy dund yow sa diggante ak sa borom. Mhm. Mhm. est-ce que dans nos sociétés yomb na nga jógee ci religion bi dem ci bi ci des. waaye je sais pas franchement man amul benn problème. waaw <laughs> ah, non benn problème quoi man man en fait. non man man maa amul benn problème. mais pas du tout lu lu may def nekkul woon épreuve mhm. franchement non. <laughs> lu ma def rek dama ko assumer te may enchaîner continuer sama life noonu. alors on revient à la musique. Hmm. depuis quand nga ciy dugg. musique moom j'ai grandi avec quoi bi ma bi ma mais mun naa mun naa raccourcir vite fait. Hmm. ne 2005 créé woon naa benn groupe man ak samay gars ñoom Talla Niang et tout ñoo boobu ñoo bokkoon lycée lycée Parcelles Assainies ñu nekkoon benn groupe euh, mais Kaolack laa màggee. Hmm. xam nga foofu doon naa fa jéem a tout temps booy mais bon euh, bi ma ñëwee Dakar ma créé benn groupe man ak sama gars yi. ñu dem ba ci biir après ñuy bàyyi ñi nekk ay enseignants affaire yooyu noonu ñu bàyyi ñenn ñi continuer man ma continuer tamit mais en 2012 bon 2007 ma commencé solo bi ma commencé solo après juste avant 2007 bi noonu man dama doon gën a préféré jàng quoi ma dem jàngi ay infographie montage affaire yooyu noonu après ma dem di liggéey benn télé de la place ma nekk foofu di liggéey loolu tax ma stand by yoon affaire musique affaire yooyu noonu mais liggéey rek laa doon def si audiovisuel après ba demee ba 2011 ma ne écoute xaaral ma génne benn album parce que moment boobu noonu maa ngi bëggoon voyager. Mhm. ma ne xaaral ma génne benn album au moins bàyyi ko fii tranquille continuer après 2012 mun naa ne sama carrière moom 2012 daal la commencé quoi officiellement. officiellement mhm. mais depuis lors Steph on peut dire que notoriété bi nga waroon am amuloo ko tu as ci ban côté ba tax buzz yi xale di wax. non nii la nii la la waroon. wala vous préférez nii la waroon demee en fait sa dire comme man am na ñoo xam dañ ne oui non ak vidéo yi ngay def ak yooyu waroon nga dépasser fii ma ne leen non soo soo jàppee ne yow waroon nga dépasser fii rek kon yaa ngi yaa ngi yaa ngi yàlla quoi. Mm. fii nii la waroon nii la waroon demee mun naa bëgg génne album bi le 15 janvier le 14 ma jóge fi. nekk mm-hmm. feneen xam nga mun naa mun tey balaa may ñibbi sama kër mun naa ñibbi àlaxira quoi donc du coup yow da ngay rek nga wax. ne lii moom nga bëgg mais après yàlla moom moo koy def am na ñu bëri ñoo xam ne tey da gis ñu ne la kii moo dàqoon football El Hadj Diouf kii moo dàqoon football mais mu ngi nii si koñ bi. Mm-hmm. xam nga bo ñiy jàpp ni moom moo moom moo góorgóorluwul ba tool noonu ñeneen jàpp ni loolu mbiru suñu borom la. Mm-hmm. moo ko buggee noonu ku ci nekk rek sa étoile fu mu war a yem lay yem loolu laa jàpp mais yow li ëpp solo mooy defal fais ce que t'as comme man ma dem studio ñëw génn def samay affiche def samay kii communiquer lu mu a communiquer. Mm-hmm. mais nit ñi kenn moomu lañ et puis yàlla moom mooy xool. liggéey moom mooy xool yow. sa mhm. sa étoile fu mu koy yemale mu yemale ko foofu noonu mun nga def ba bëgg dee mun na la yow fii nga yem en fait leer bi fii lay yem am ñoo xam ne dafa leen tàqal ñu taax am ñoo xam ne duñ mus tàkk donc loolu la ko mais man amuma benn problème ci fu ma yem ci sama carrière wala af loolu amuma si problème comme lu may wax à chaque fois rek boo fi jógewee loolu moo yëpp solo. Mhm. boo fi jógewee moo yëpp solo artistes yu bëri jóge nañ fi si lañ soog a xam waaw kon kii defoon na fi lii loolu am na solo même boo si profité wul. tey sa doom mun na dem fenn ñu nag papa moo fi defoon lii moo fi defoon lii et mm-hmm. nit dem na di wut liggéey fenn wala bëgg ñu jàppale ko ci dara mais du moom mooy méritam mais waajuram defoon na fa loo xam ne buy dem di ko am. Mm-hmm. d' dafa mel ni étranger ñooy gën a consommer sa li ngay def musique Sénégal plus ou moins pourquoi. que que kaaw la ñuy gën a consommer sama musique que Sénégal non pas du tout. Mm-hmm. pas du tout man sama communauté sur internet boo boo xoolee ñu may ñëpp ay sénégalais ñoo ëpp sénégalais ñoo ëpp fuuf et puis bu may jouee aussi ay France wala yeneen dëkk du sama concert bu bopp parce que foofu nit mënul jóg nii rek organiser fa sa concert bu bopp mënul nekk mais ay festival la festival yooyu ngay jouer d'accord yooyu moom bon tubaab yi ñi ñu weex yi ñooy ëpp quoi que que yi. Mm-hmm. mais c'est partagé entre les deux xam nga tey mun nañ la ne sur internet ñiy jënd. tubaab ñu ëpp du ñu jënd parce que ñoom am nañ carte bancaire tout ñu Sénégal ñëpp amuñu carte bancaire jeunes yëpp xale yëpp amuñu carte bancaire dañuy préférer jënd via yeneen canal de de d'achat et tout donc loolu la rek mais nekkul nii enfin ñi ñooy gën a consommer pour man sénégalais ñooy gën a parce que lu may wax yëpp olof la sama sama album bi euh, anglais bi tuuti la si man maa jël benn titre entier rek def ko clip parce que am na leneen lu muy viser pour yeneen deal xam mais titres yi si nekk yëpp def naa chanson ak les diwaan ji. 100% olof lañ laax lël sax moo laax tuuti anglais moom def naa chanson ak Edmo Flow Edmo Flow mu ngi làkk lingala ak euh, anglais. Mhm. xam nga man olof laa làkk yëpp. def na chanson ak yeneen gaa ay Dip Doz ay xam nga leen. ay Dip Doz ay yeneen ay Flexo Dables et tout. ñoom sax anglais ñun voilà chanson boobu def nañ anglais et tout mais on essaie de mélanger en tout cas. mais sénégalais ñu ngi ñuy déglu de sénégalais ñu ngi may déglu xam nañu baax lu may def. Mhm. mais lu tax lu tax grand public bi xamuñu la ba tey. Mhm. grand public bi nekk ci hip hop bi. Stéphane Kabou dafa tëju waaw dafa mel ni dafa nekk benn gaañaan boo xamante ni soxlawul ñenn xam ko bañ na ko ba yenn rappeurs yi la xam sax. Mhm. yow ak ñoom yéen a bokkuloo ñu si mel ni Flexio Dables ay Rex ay Dipidos ñi nga xamante ni mooy loolu. Mhm. Mhm. waaw loolu la loolu la xam nga day am ñoo xam ne moom comme lu may wax rek dañuy préféré siiw dañuy préféré bëgg siiw ndax xam nañ ma xaar ma def lii xaar ma créer buzz am ñoo xam ne par exemple moom ñi muy wax jëli ñooñu mun ñooñu école rap lañ. xam ne si dara tey benn Rex. wala benn dip dose wala benn flexion ñooñu c'est des c'est des fous mais ñooñu boo génnee si mbedd bi laajte kenn xamu leen. xam nga deux ou trois personnes xamante dañuy suivre hip hop dëgg ñoo leen xam mais damay wax encore une fois damay dellu rek si yàlla loolu yëpp yàlla la parce que gars yi ñu ngi def lu ñu war a def. xam nga pour pour affaire yi egg fu ñu war a egg. dip dose génnee na clip mais dip bu demee génnee clip Stéphane bu génnee clip flexo bu génnee clip après li si des tele yi ñoo ko war a def. Mm-hmm. mais bu clip bi ñëwee réew mi TV. Rewmi TV ñu teg ñoom ñu leen neex bañ a teg ñooñu loolu Stéphane mënu si dara xam nga lu ma la wax ma si dara. parce que il faut que tamit euh, affaire bi chaîne la quoi. voilà affaire bi chaîne la. Mm-hmm. artiste bi bu defee bu bindee xalaatee bind dem studio dem fii def lu mu war a def yëpp ñëw teg après jox gars kii dafa war a pousse kii pouse kii pouse ba mu egg fu mu war a egg. Mm-hmm. xam nga loolu la malheureusement comme lu may wax du ñëpp ñoo mun a am lu ñëpp am. mënul mm-hmm. nekk. donc loolu am na ñoo xam ne mun nañ ci nekk ba bàyyi te duñ am loolu. Mhm. mais tamit loolu la ko yàlla di bëggee. Mhm. mais yow euh, quelles sont tes chances vraiment. la nga xalaat ni mooy sa sa chance pour euh, être au devant de la scène autre être euh, voilà célèbre comme les autres. je chercher ma célèbre mais. ça en fait partie quand même. oui oui oui mhm. bien sûr bien sûr comme lu ma rek xam nga tey. comme man je suis un homme de média xam nga nekkuma artiste rek ku liggéey si ay télé pendant des années comme xam nga genre man man maa doon teg clip bu artistes yi comme xam nga maa doon réaliser yenn émissions yi man maa doon monter yenn émissions yi di def ay voix off journal donc xam naa yoon bi mais cherché wu ma loolu lu mu war a def dinaa ko def rek comme xam nga après lu si des yàlla moom moo koy mottali mais bu ma demee ba célé célébrité boobu ñëw comme te loolu dafay ñëw sax. mu ngi bëgg a yàgg de 2007 ba léegi. non non du 2007. <laughs> non non 2012 non il faut il faut se dire man ba ma génnee album 2012. Mhm. sax fii damaa dem. 2000 2010 2019 nii mooy sama lii laa mooy sama deuxième album 2020. en tout cas 2019 bi moom ni nga dugg see fin d'année bi. sa single bi nga mujjee génnee doy na waar trop mën nga rap gars yi nangul nan la ko mais fa nga yem il faut nga fekk si booy ci li ñuy def comme ñoom nga ko de jël wolof bii di di si teg. mais dangeen ngeen trop say hip hop boobu noonu jamono bii fayul. te quoi qu'on puisse dire. album bi ngay bi waaw am na ay. Steph xale dañoo féroce de. mais les jeunes rappeurs là. Mm-hmm. xam nga yéen nan ngeen di rabal. Mm-hmm. yéen da ngeen di rabal rappeurs yi ngeen di rabal. sa genre yi ku ci mel ni ay Rex. waa Alioune Dieng rab nan fi ba rab fu dara newul mais ana ñu. mosuñu mm-hmm. génn Gambie. yow am nga sens sax yaa ngi dem di ñëw mais benn public bi xamu la Dip Doz ku ko dàq rab Sénégal amul. amul sax terrain. Dip Doundou gis a ngi nii ba mu fëlee yàggul ay ñoom ngaaka Blindé ak yenn boy yi Akhlou Brick. Mhm. pourtant ñu leen rab sax ñu ngi fayeeku. kon est-ce mhm. que jotul yéen ñi ngeen xamante ni dañ leen jox cër respect respect rek fayul courant. Mhm. ngeen xoolaat seen musique. waaw mais yow yow fayeeku boobu nga wax ah ak rapport yooyu noonu nga lim kan moom si gën fayeeku laaj leen ñoom. non laa wax musique. musique moom a tax may wax. musique bi xoolal gis nga musique réew mais Sénégal ñoom ñoo gën a xam wax la benn affaire boo xam ne duma ma ko sax wax mais am na si ñi nga lim ñooñu. am na ñu ko xam fu ma dem fu ma dem man si musique ah sama morom yi jeunes yi kenn demu fa. musique rek laa la wax de musique kese kese sans compter man fu ma dem pour ay deal de film damay toog fii Sénégal ñu contacté ma Afrique du Sud ne ma dañoo soxla musique de film dal na ma ba tàyyi ma nekk di si liggéey actuellement. comprendre nga donc bu fekkee comme lu ma wax rek ku nekk dafa am objectif am da ngay siiw pour am xaalis wala da ngay siiw pour ñu reconnaître la rek comme lu ma wax respect respect respect boo xam ne fayul courant. xam nga lu ma wax tey jii rapport yooyu ngay lim noonu ñëpp nga ne wuy dañuy toj affaire yooyu noonu ñoom bu ñu ma gisee nga foog ne danañuy wax mu jëm kaw duñ ko def. xamante <laughs> parce que xamante nañ ba pare. xam nañ liggéey bi. Mm-hmm. comprendre nga xam nañ liggéey bi mm-hmm. c'est pas parce que yow yaa ngi animé hip hop mm-hmm. que benn animateur hip hop moo la gën a siiw que mm-hmm. bu la gisee da lay manqué respect non non est-ce comprendre nga bu la gisee ah, jili waaw respect comprendre nga c'est pas parce que tey sa caméraman benn caméraman bu nekk Hollywood bu ñëwee ñu bokk liggéey bi c'est pas parce que kooku ko xaalis wala moo gën a siiw que da koy manqué respect moom mu nangu ko dès l'instant où li muy def xam fii kii nekk Hollywood mais man fu may dugg pour sama musique ñoom kenn dugg kenn dugg si. mais waxuma nekkuma di wax ni man oui ma presse yaa yaa indi wax boobu noonu moo tax ñu siy wax. <laughs> comparaison boobu noonu parce que <laughs> réewum people la ba pare Sénégal. Mm-hmm. yow Sénégal da ngay siiw euh, te dara du nekk sa poche. loolu xam nañ ko. dëgg la ñaata artistes ñoo fi kii di woote ndimbal après ñaata. comédien ñoo ñoo ñooy am problème di woote ndimbal. bëri na te bégloo nañ ñu. Mhm. pendant plusieurs années. Mhm. comme xam nga pour man nit mun nga rentabiliser sa li ngay liggéey. am si mhm. xaalis te sox te doo siiw. mun nga tamit siiw te te doo te doo rentabiliser mun nga siiw rentabiliser aussi. mais loolu yëpp comme ñi nga lim nii par exemple da nga lim ba lim Dip par exemple. le rappeur le plus populaire. yàlla moom mooy def loolu. xam nga da am talent après nga am nga am nga am liggéey. xam nga. après lu si des yàlla moom mooy def loolu léegi nag yow lu yàlla def boo ko jéemee contre foofu ngay amee problème nga nangu loolu yàlla def nga nangu yow tam lu nga nekk yàlla moo la ko def mm-hmm. et après ngeen ànd ci loolu loolu nekkul dara bu bu loolu passé bee mun nañu ànd man ak yow mm-hmm. nga gën ma siiw nga ëpp ma xaalis comme xam nga mm-hmm. ñu ànd man ak yow nit ñi naan ma chaque fois waaw amee yow yow ji li moom et cetera et cetera man may jéem a rey sama bopp di jéem a di la jéem mun naa sax commencer di la jalouser. di la andil ay problème di la mhm. andil alors que demeewul noonu. Mhm. comme mun naa toog aussi di xool lundi yàlla may jili ay milliards. Mhm. mardi yàlla dindi milliards yooyu yëpp jox ma ko. dëgg la dëgg la. est-ce xam nga fekk man maa ngi doon teg bët. ba man taluma sax milliards yi ma yàlla jox et tout. loolu yëpp affaire alalu àdduna la amul benn du dara. loolu nekkul dara. tey Youssou Ndour c'est l'artiste le plus populaire. Afrique Sénégal machin. Mhm. mais am na ñoo xam ne tey bu Youssou Ndour demee si ñoom daf leen di wax yi respect. respect dëgg la. waaw loolu moo ëpp solo. dëgg la loolu moo ëpp solo surtout respect boobu mais sa single bu bees mi nga mujjee génne. Mhm. sound boobu mi ngi yëngal réew mi. waaw sound bi gars yi apprécié nañ ko mooy mooy li may wax léegi nii rek xam nga ba ma ko génnee xam xam naa sama stratégie yu may tëral ba ma koy génnee clip bi laa ñëw rek génnee. Mhm. mais clip bi j' damay yàgg di ko tourner xam nga def si sama énergie sama les les moyens qu'il faut def si énergie bi après génne ko. Euh, bi ma koy jël dama tourné ba pare rek jël sama vol dem Sénégal xam nga ci lendemain bi deux jours après mu génn ma ma génne ko quoi xam nga donc gars yi apprécié ko gis nañ leneen encore loo xam ne mosuñu ko gis. waaw surtout publicité bi. Mhm. ni ñu xam ni kii album bi dañ ko liggéey. album bi dañ ko liggéey bu baax a baax. single bi bu fekkee looloo nekk nar a nekk ci album bi gëm naa ni déwén di nga jël meilleur album de l'année Galsen <laughs> d'accord alors Kabou mm. euh, Steph mm. euh, passage yan moo ci gën a marquant est-ce que mën nga ñu ñamal tuuti ci euh, kii bi mujjee génn suuf waaw. Great Master. Great Master en en anglais la ah. en mm-hmm. anglais la Great Master. Mm-hmm. clip bi lu may wax. Mm-hmm. Euh, je pense que clip bi dina jàll si écran bi. clip bi boo xoolee au début dama ñëw tëdd noonu. et tout après ma ma jékki-jékki yeewu ñu tëj ma si benn chambre boo xam ne chambre isolée la. xam boo xoolee maa ngi tëdd ci suuf maa ngi tilim. et tout ça mais moment boobu noonu dama xawoon doon halluciné dama doon halluciné ci laa ci nga gis ma joog dem jël pomme bi nii euh, xam pomme bi fekk pomme bi c'était une pomme pourrie ma sànni ko xam nga après dem cracher et cetera te daat après gis benn benn lu lu bi ñëw si man te loolu yëpp ba ñu koy tourné dañoo andi loolu yëpp si plateau bi tourné ko. lu ci plateau bi. dañoo andi lépp si plateau bi gis nga vidéo bi dañoo andi lépp si plateau bi <laughs> dañoo ñëw ñu tourné léegi bi mu ñëwee jàkkaarloog man ma yuuxu. bougé wul après ma yuuxu ci la reculer si nga gis mu reculer noonu après dem mais alors que enfin loolu ci clip bi existé na mais dans la vraie vie li ma doon kii existé wul woon quoi ci man comme ay rêve la woon après ma commencé di mbëkk mur bi et tout ça. yow Steph lu tax nga bëgg a affaire héros yooyu <laughs> noonu. non loolu <laughs> kii la rek. Mhm. film la rek léegi après ba ci laa gis benn ci plafond bi bënn mu am benn genre fissure lumière. ma dem pour ñaan pour yaakaar ni yàlla la leeru yàlla bi la ma dem pour ñaan ma ba ma def dëkkee sama loxo yi mu làq après nga gis sama loxo yi làq et tout ça muy naaj léegi bi sama loxo yi di naaj après nga gis ci la malaaka bi wàcc mooy xale xale bu weex bi noonu si la wàcc après ñëw tëj faj ma sotti ma onction bi faj ma et tout ça après ma remercier ko après ma jóg xam nga bu ma jógee taxaw gis ay plume plume yu weex di wadd si asamaan bi ma ma jël benn plume moo wadd ma for ko après ma gis ay plume yu weex après plume yu noir commencé ñëw ma daanu xam après ça ba ma yeewee affaire yu bëri da halluciné naa ci clip bi bi ma yeewoo après laa gis benn bunt bu weex si fin bi boo xoolee mm. ma dem di dugg nag ci foog ne c'est le salut c'est la porte du salut may dem si porte boobu après musique bi jeex ma retrouvé wu ci benn salle boo xam ne nekkete je suis emprisonné encore mm-hmm. alors que foog naan dañ ma sauvé ci laa sol tout blanc de force bi xam nga. imagination boobu lépp lan moo ko motiver. ku ko def scénario mm, maa ko def scénario maa ko def mais encore une fois xam nga pour lan la pour wane encore une fois que. Mhm. mun nga nekk si ay jafe-jafe. comme jafe ma nekkoon ci clip bi. Mm. muy métti di métti ma gis ni lii moom may sauvé ma yaakaar ne lii moom mooy ci génnee ma dem dugg ci boo xoolee dama génn ci porte bi dem ndekete ci prison laay dem encore. Mhm. est-ce que comprendre nga lu mu bëgg wax mooy comme jafe-jafe àdduna bi tey jii nii booy yi lu mu métti métti nañ ko kal fu ñu ko rek. xam nga. du job parce que ne pas choisir la facilité en fait. ne pas choisir éviter de choisir la facilité parce que nit mën nga foog ni yow lii sauvé la nga dem dugg ci benn affaire boo xam ne ndekete yaa ngi dugg ci lu gën a graaw que li nga nekkoon mais doo ko teel a gis. parce que bi ma solee lu weex noonu maa ngi set clean comme wuuteeg euh, image bu ñu bu ñu jël euh, bu bi maa ngi set maa ngi clean et tout mais je suis devenu j'étais fou en fait. ma toog nii ñu takk ma camisole de force après lampe bi di clignoté noonu après clip bi jeex. Mhm. noonu la demee. beneen clip tam suuf. suuf bi suuf. suuf mun nga ñu ko décortiquer parce que le clip est aussi un peu bizarre. suuf en fait da gis benn benn euh, dañu wone globe bi. dañu wane mhm. àdduna bi caméra bi tiim terre bi. Mhm. après ñu wone asamaan bi léegi ñu wane ma man ma nekk benn genre étoile daanu si ndox mooy leer nit leer la ko ma daanu su bu ma daanoo ci ndox bi après ma génn si laa génnoon si ndox bi boo xoolee ndox ay heure laa nekk si ndox bi pour tourner seen boobu ma génn si ndox bu ma génnee ci ndox bi mooy wane ni man juddu naa comme jigéen buy am doom dañ naan elle perd les os. Mm-hmm. xam nga bi ma juddoo léegi ma génn ci ci ndox bi ci laa génn si géej bi noonu di dox tout nu xam nga <laughs> léegi may dox tout <laughs> léegi no parce que xale bu juddoo da ñëw tout mm-hmm. léegi maa ngi wër kan moo may war a solal yére. léegi si laa dajeeg si laa dox dajeeg xale boobu noonu xam nga mu mu jox ma yére yi si clip bi après ma ma def nii après ma sol yére yi. Mhm. continuer dem bi ma demee ma dajeeg ngelaw bu bëri bi noonu mooy le le le maître parce que àdduna bi quatre éléments la. Mhm. l'eau la terre le vent et le feu benn bu si ñàkk rek dund dootul am ndox mënul ñàkk la terre mënul ñàkk le feu mënul ñàkk le feu mooy énergie bi dawal caméra yeeg yooyu noonu yëpp ak ban la wax l'eau ak le vent. Mhm. donc benn mun si ñàkk. pour daw loolu laa véhiculer si clip bi te yëpp dama ko wane ci clip bi début bi ndox bi bi ma génnee ci ndox bi après bi may dajeeg ngelaw bi xam nga mooy le vent après bi may dajeeg suuf bi mooy xale bi toog nii def nii xale bi dafa tëj loxoom après mu tijji loxoom nga gis fleur bi génn parce que fii dafa amoon ay suuf pour wane ni fleur kii mooy joxe dund quoi. Mhm. après fin bi ci laa dajeeg maître feu bi ci la ci la gaañ bi doon ma ëff safara bi ni sama kanam et tout ça. Mhm. après bi ma dajalee quatre éléments yooyu nag. normalement je suis censé créer la vie quoi. Mhm. parce que quatre éléments yi moo tax dund am. ma dem nag daj dox ci benn kër romb gis benn femme boo xam ne dafa tëddoon ci lal bi di jooy jëkkëram dafa demoon guerre après jëkkëram dee si geer bi ñu wax ko ko mu tëddi di joy moom elle était enceinte xamu ko. bi ma rombee ci fenêtre bi comme j'ai emmagasiné naa énergie quatre énergie yooyu yëpp. Mhm. bi ma rombee ci mbedd ci ci ci ci fenêtre bi rek doom bi bougé si biir bi. Mhm. mu mu reetaan xam ni là a la vie. tout ça c'est compliqué est-ce qu'il sera facile à ton public de décortiquer tout cela. mais si c'est non moom mu gën a comme ça man ko décortiquer léegi <laughs> comme ça ma bàyyi leen ñoom décortiquer sax comme ça man ko décortiquer. ku nekk ak sa appréciation quoi d'accord alors bi nga duggee ci rab bi ba léegi quel a été ton plus grand projet réalisé. mon plus grand projet réalisé ah posé nga ma question nag. <laughs> Euh, pour man réaliser gu ma benn benn projet bu bu bu big bu satisfaisant. Mhm. projet bu ma bëgg def bientôt boo xam ne big projet la mooy sama son yi ma def yëpp ci album bi dama ko clipper yëpp après def ko benn long métrage xamante ni après ma ko diffuser au cinéma et cetera et cetera. Mhm. loolu mooy la mooy nekk sama ultime big projet concernant la musique. Enfin, mhm. la musique et le cinéma quoi. mais sinon def naa ay concert joué naa si kaw bi joué naa fii ay concert tamit. Euh, def naa ay clip def naa son et puis je suis j'en suis à mon deuxième album quoi. Mhm. donc là bu album bi génnee je vais voir nit ñi nan lañ koy apprécier. Mhm. nan lañ koy jëlee et on verra ce que ça va donner. depuis lors ñaata concert nga def. beaucoup. de concerts joué naa fu bëri en fait ah si Europe. Mhm. mais fii nii pas beaucoup de concerts quand même. pourquoi pas. mais parce que comme lu may wax rek j'ai si sama carrière j'ai fait beaucoup de stand-by pour liggéey. j'ai fait beaucoup de stand affaire yi comme dama war a sérieusement toi ton rap tu le prends au sérieux bien sûr mhm. parce que pourquoi parce concert moo non pas que defoo concert mais on dirait que tu avances à pas caméléon mais noonu la noonu baax na caméléon caméléon de mais le temps n'attend pas non mais bul course contre le temps nag justement mhm. ouais justement bul course contre le temps parce que temps bi allons-y ji mais instant bi mun na ni Stéphane toog na pour génne albumam def promo bi. delloogul kaaw waaw franchement waaw waaw maa ngi fii pour un bon moment. Mhm. Sénégal pour def promo bi dem à la rencontre de mes fans def naa benn première rencontre aux Parcelles Assainies et tout y avait du monde ñëpp ñu fa woon. Mhm. et tout ça m'a même surpris yi ngi daje foofu noonu ça ça faisait plaisir et war nañu def yeneen rencontre en attendant de sortir l'album. Mhm. def conférence de presse et d'ailleurs 2019 euh, war nañ def war naa def benn kii. Mm-hmm. benn don pour les talibés. Mm-hmm. et tout ça distribuer leen ay yére ay daal ak ay drap. on y sera waaw. incha allah comme seddaay bi nii et tout ça ñu jàppale leen. affaire dina joxe suñu est ce qu'on peut s'attendre à ce que balaa ngaa demaat nga dem grand théâtre def clos. mais pour le moment on a prévu Sorano. Mm-hmm. pour le moment on a prévu Sorano ak deux autres concerts mais deux autres concerts yi. pourquoi pas le grand théâtre waaw deux autres concerts dañuy xaar date date bi quoi en jox ñu benn date boo xam ne. mooy date bu bu ñu arrangé bi et tout ça. Mhm. ñu xool dañu def point d' interrogation ci ci place yooyu noonu quoi. Mhm. en attendant. d' accord Steph tu fais quel de rap du rap engagé ou autre chose. engagé enfin ouais engagé parce que pour man del même bu woyee mbëggeel sax c' est engagé ah. voilà loo mënti woy pour man c' est engagé su ma woyee. Euh, sama dàll bi dama ko a raxas c'est un engagement parce que maa ngi tu pour man loolu rap rap laay def je suis rappeur à la base et je me limite pas en fait toutes sortes de musique mun naa si poser mhm. aujourd'hui mun naa poser sur du mbalax mun naa am na sama benn chanson boo xam ne sax mu ngi tudd xool ma mhm. et chanson boobu noonu genre euh, ay marimba moo sa nekk affaire yooyu noonu mhm. que je fais c'est c'est une chanson qui fait partie de l'album voilà album bi lay génn ñoo ci nga ci bi featuring yi. alors am na ay gars yu nekk Ziguinchor. Mhm. Yabi Diab. waaw je sais pas xam nga rek ñu faamara mhm. gars yu mun rap waaw gars yi ñu ngi si album bi. Mhm. Euh, am na D Mike. am na Deep Dose. am na Flexo Dabless. am na Edmo Flow. am na Leuz Diwane ji am na Maya Abdul. Mhm. Maya Abdul. si si am na Maya Maya Abdul. une fille très bien on a fait une belle chanson. Be strong voilà c'est ça. am na Maya Abdul et puis ouais voilà. Mhm. toutes ces personnes là sont dans l'album mhm. mm. D'accord. Alors, amis auditeurs et téléspectateurs, je rappelle que vous êtes dans votre émission Rémi People. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce plateau Stéphane Kabou. Mm. Alors, Steph, nous avons une actualité. jamono yi Sénégal jax na de sentir nga ko. <laughs> l'électricité, tout ça, apparemment, il y a une augmentation. Comment vous vivez, cela en tant que citoyen sénégalais Mais de métier. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme c'est deux groupes de personnes. Moi, il y a grève avec le gouvernement ou l'État, je ne sais pas. Ils ont une affaire. léegi ñun sénégalais ñun ñun ñun lambda ñoo si souffrir les sénégalais lambda. Mhm. ñun si souffrir quoi. Mhm. xam nga du ñëpp ñoo am bouteille 1000 francs mille francs bu ñu jëndee bouteille ndox pour sangu xam nga ndox dafa bokk si dignité wu nit quoi. Mhm. nga yeew mënoo sangu mënoo mënoo raxas sa yaram xam nga su fekkee jigéen c'est plus compliqué parce que seen organisme dafa com dafa complexe. et tout ça ñu war toppatoo seen bopp bu fekkee xale dañoo sensible ils ont rien demandé et tout léegi un comme le Sénégal en 2020 ñuy couper courant ñuy ñuy couper ndox. pare nga pour wàcc ci mbedd mi. kaas loolu waaw waaw loolu moom moom pare naa pour loolu. Mhm. boo leen xoolee xam ni pareegul sax pour wàcc ci mbedd mi li dara wàcc def ko ci ay <laughs> son mais mais eh. Stéphane man sama dernière question mooy yan beatmaker nga àndal ci projet bi. Mhm. beatmaker yi la plupart des beatmakers je sais pas si tu connais Just Beat. Just moom moo def la plupart des instrus. Mhm. yeneen yi am na yoo xamante ni benn français moom moo ko def bu tudd Thierry. xam nga. moom moo def instruit Great Maza bi bii daw nii just moo ko def. Mhm. donc juste pour te dire encore une fois que man je suis très ancré au Sénégal la plupart des instruits just moo ko def just il est sénégalais mu ngi mu ngi fii Sénégal quoi. Mhm. moom moo doon def son yi et man damay dama doon ñëw di jël si ay bagages di ko yóbbu di liggéey. Mhm. et à chaque fois moom quand à chaque fois qu'il fait une musique soit mu envoyé ma ko wala ma jël si ko whatever mais su su su ko gars yi déggee ñi may joobal dañ naan mais kii dafa dof amuñu luñ si yokk amuñu luñ si wàññi. pour te gars yi fii nu ñu aayee. yeah mm-hmm. donc Jess moom moo def euh, instrumental yooyu noonu. Mm-hmm. Leuz la chanson qu'on a faite aussi Jess moo ko def li ma def ak Maya Jess moo ko def. Mm-hmm. et tout franchement moom moo def 70 pour cent des instrus yu nekk si bi. au Sénégal le rap a beaucoup évolué mais tey jii penses-tu que am na loo xamante ni war nañ ko ci corriger joyanti ko si c'est le cas ce serait ko mais écoute ñu ñu ñu kii ko rek ñu formaliser ko ñu ñu normaliser ko mu am ay label xam nga ay label officiel yoo xamante ni dina permettre rappeur bi bu demee ba jël retrait wala rappeur bi même de son vivant de son actif mhm. muy am ay royalties muy am xaalis à chaque fois mhm. xam nga parce que c'est important mënoo mhm. tamit def di def musique musique dépense bu métti la xam nga tey da ngay dem si benn réalisateur mu ne la clip lii la xam nga dafa cher son yi dañu cher communication bi dafa cher sa staff bu ngay booy léegi ak et tout ça donc loolu yëpp nga def investissement boobu noonu yëpp après amoo retour yi te du fan si ñoom ñoo la war a jox forcément retour yi direct mhm. xam nga il faut que mu am des plateformes yoo xamante ni ça fait de sorte que yow après foofu ngay jëli say droit d'auteur mhm. c'est important loolu amuñu ko et loolu moom daf mooy dundal artiste yëpp yu nekk si àdduna bi droit d'auteur moo leen dundal mhm. à part sponsor te sponsor réalité dëkk bi xam nañ ko c'est pas tout le temps ngay dem am sponsor moo nekk 15 de sénégalais un million yi ñooy déglu peut-être à cent pour genre yooyu noonu. Mhm. donc voilà sponsor yi fu ñuy def seen i dañ koy xool. c'est pas évident te du ñëpp ñoo mhm. euh, nga liggéey mu nekk sa droit d'auteur loolu ñëpp mun nañ ko am parce que yaa ko moom. Mhm. donc du dañu war a normaliser loolu noonu faire de sorte que les rappeurs puissent gagner de leur vie que ce soit même art bi quoi. art bi yëpp quoi. ñoom dañuy plaindre jëm ci wàllum production. man maa produire sama album bopp ah, maa produire yëpp. ah les ressources sont là donc. maa ngi jéem loolu ah. <laughs> maa def maa def non man en fait j'ai mon propre label. c'est propre label mon propre label moo nekk Amnesic Studio. Amnesic voilà et le mhm. label il va être implanté ici au Sénégal. Mhm. Euh, dans peut-être quelques mois et tout ça. Mhm. voilà donc man maa. am na ay booy yow fa signé. Euh, pas encore parce que am na am na yenn négociation nag maa ngi xool. nan laay def quoi et tout ça mais pour le moment. man maa nekk peut-être seul produit parce que man maa bëgg teg sama label. Mhm. et tout ça man maa produire album bi A ba Z. les vidéos hip hop euh, dafa nangu lii comme li nga def nii tey pochette bi ku ko xool. Mhm. yaa ngi ci teg affaire royaume te benn kurus ak ay chaînes. Mhm. dañuy faral di décortiquer loolu am na loo bëgg a expliquer fii. lan ouais en fait boo xoolee affiche bi en fait y a dafa am rouge am bleu dafa am dafa am ay flammes je sais pas si tu dafa am ay flammes am glace. man ma nekk si digg bi moom mooy la lutte entre le bien et le mal mooy àdduna bi rek encore une fois et boo xoolee la couronne couronne bi ak ak or yu ma yor noonu mooy wane puissance u nit ak alalu àdduna bi donc boo nekkee ci loolu rek da ngay nekk yaa yaa ngi ci benn xeex boo xam te entre le bien et le mal la finalement nag après on sait pas fan ngay mujjee en fait si tu vas choisir vraiment de basculer dans le mal ou dans le bien et loolu noonu moom mooy album bi en gros voilà et donc du coup bi moom mooy signe signe de puissance peut-être signe de royauté xam nga bëgg àdduna bëgg affaire nguur wala genre affaire yu mel noonu. loolu lay mhm. signifier. peut-être une dernière question yaa ngi ci loolu noonu. oui yaa ngi ci lutte te c'est ça tes textes souvent boo ko bind yaa koy bind. oui oui oui. tu partages quand même avec pour mu suggérer la ne la fii peut-être mën nga fi yokk lii. non personne avec moi-même j'écris mes textes. sa bopp rek doy na la. parce que li li parce que li nekk ci man laay bëgg a génnee mu dem si ñu. parce que tey boo ñëwee yokkal ma benn partie ci texte bi. Mhm. loolu yow lay nekk après. Mhm. du nekk man est-ce que dinaa ko mun def comme ni mu koy bëggee. Mhm. mais nag la plupart des rappeurs Sénégal rappeurs yi ñooy bindal seen bopp ñoo bindal seen bopp que ce bien c'est c'est des monstres. pratiquement ñu ngi suñu fin émission. alors la toute prochaine nouvelle venant de toi lan lay nekk lan la ñuy xaar lan la ñu war a mën a xaar ci yow. à part le film que je compte faire nañ na gars yi xaar euh, album bi. en film. ouais film bi film film clip yëpp et tout ça benn long métrage à part ça na gars yi xaar album bi pour le 15 janvier. jox leen rendez-vous le 15 janvier ñu ñëw ci conférence de presse bi déglu album bi séance d'écoute bi poser toutes les questions. Mhm. l'album sera disponible en CD digipack et clé USB aussi donc. Euh, ça sera disponible aussi sur toutes les plateformes de téléchargement sur internet partout franchement l'album sera accessible quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. À part le rap tu fais quoi dans la vie? travaille. Comme quoi. Je préfère ne pas le dire. <laughs> Donc, euh, mais je, ouais, euh, je, travaille. Ouais. Eh euh, non, même pas, mais. <laughs> en tout cas, c'était un plaisir. Mm Le dernier mot. di nuyu ñëpp di di nuyu sa équipe technique yëpp. Mm-hmm. di nuyu Djily bu baax di ko remercier si invitation bi di la remercier Mimi di big up euh, Sabine Moreau mm-hmm. bu baax a baax donc Rewmi TV. waa je vois que c'est en train de naître, ça va grandir, on va, on va pousser. Inch'Allah, merci beaucoup. Inch'Allah, et je vous dem. Rendez-vous samedi pour Réumi People. Lundi, Galsen Pao. naa ko invité incha ñu def émission rajo bu doy waar. moom Stéphane Kabou ñu ngi koy bëgg bu baax a baax. merci beaucoup amis téléspectateurs on se retrouve incha allah le prochain ak beneen star kon Réumi People la woon. Ce samedi, nous étions avec Stéphane Kabou, il est rappeur, il réalise aussi des vidéos kon tey jii moom lañu amoon mbégte jàkkaarlool man ak Djily Der kon noonu rek lay demee samedi ñu toog ak beneen star d'ici là restez avec nous et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube et Facebook noonu donc lay demee très bon week-end chez vous.